Monsieur le ministre des Affaires étrangères, étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le ministre du Travail en charge de relations avec les institutions, mes collègues honorables députés, maa ngi nuyu également les Sénégalais de la diaspora, particulièrement ceux de l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. di nuyu seen délégation bi ànd ak yéen particulièrement sama ñaari madame Mbacke yi nekk ci ministère bi madame Nata Samb Mbacke bu fees di sama ak madame Ami Mbacké donc di yaay ci man euh, monsieur le damay defaat ci benn plaidoyer boo xam ne yaakaar naa ni tey di nga ni ci indil ay solution parce que nag ñu ngi bëgg a sonn waxoon naa ni dem ci réew di liggéey euh, passeport tëla ba nga bëgg nekk dans des situation yu difficile je pense que loolu état bu ko xam war nga ci jël ay mesures euh, li fi amoon au mois de juin je pense que ñëpp ñaawlu nañ ko Mais je pense quand même, à un certain moment, un pays quand même, je pense, doit oublier une partie de cette histoire, franchement, si nécessairement elle est sombre. li fi am ci consulat yi wax nañ ko neexul benn sénégalais mais nag ñu bëgg a punir une communauté parce que am na benn wala ñaari sénégalais yu dugg ci ay consulat taal loolu ça devient problématique. d' ailleurs j' interpelle monsieur le ministre du budget tey suñu collègue euh, Demboudi Sow il n' pas là jëm na ni du du du jëm na ni du voté du voté budget. parce que defaluñ ko loolu ñun nag duñ dem ba foofu duñ àgg foofu mais ñu ngi leen di ñaan que effectivement consulat yi ñu ubbi ko sénégalais yi ñu commencé leen a joxal seen pa seen i passeport euh, ak seen i euh, euh, papier administratif parce que lu ñu soxla la leneen li ci des mooy monsieur le ministre yaa ngi doog a ñëw am na ku fi nekkoon madame Aïssata Tall Sall même des fois si nous n'étions pas d'accord quand même franchement elle était yoo xam ne dafay interpeller diaspora bi loolu aussi ñu ngi ñu a am ci mais monsieur le ministre du budget damay def un plaidoyer pour le FAISE moo doon le nga xam ni au moins sénégalais yi nga xam dañoo nekk bitim réew te bokkuñu ci benn parti politique mën nañoo dem prétendre prétendre ci gis nañ ci nekkoon na 3 milliards diñ indi ngeen ko 1,5 milliard je pense que ce fonds là doit avoir l'appui de tout gouvernement ñu jox leen ay milliards yu baree baree bari ñu mën a accompagner les Sénégalais leneen li ci des mooy euh, les députés de la diaspora après am ay députés de la diaspora yoo xam ni dañu nekk fii mais ci liste départementale yi lañ leen leen indee loolu je pense que bari nañ ci ñoom grand sanu joon ñoom ñëpp gis nañ taxawaay bi ñuy am ci revendication député de la diaspora ñooñu aussi ba ngi lañ leen ci dispositif bi nga xam ni les 15 yi jógee foofu fa la nekk leneen li monsieur le ministre je vais terminer par là les accords accords yi nga xam ni su d' ailleurs heureusement que vous êtes avec le ministre du travail waxoon nañ ci en moom jël na ci te xam nañ ni moom bu ko waxee dinañ ko def mais l'aspect diplomatique aussi bu dee daf ci daf ci def ci war a mën a am nga jàpp ci que la portabilité et la territorialité des droits de comment des sénégalais ñu mën cee taxaw ba sénégalais boo xam ne da nga liggéey foofu boo retraité nga mën a ñëw purger fii sa retraite wala sénégalais boo xam ne liggéey nga France aussi wala nga liggéey Belgique boo fa jógee mën a demaat ci beneen réew en am naamanaate les les acquis politiques euh, les acquis diplomatiques ou les acquis sociaux